Most people would say that NDP has failed. We have seen our own Dr. Cisse writing, Barrow doesn't have enough time. We've inherited a very bad governance system, but this NDP came to guide the Barrow administration. billahi mina seytaan rajim bismillahir rahmanir rahim ñu ngi sant yalla bu baax ci li ñu laaj ndax dañ ci am kontante bu baax pour wax ci ndax ki lu ñu laaj ni ci walu liggéey président bi damay jël fi sax ñak ndax ñu jëriñum aduna yi du suñu basi nag rek Gambie yépp la ndax li tay yaakaar ñu ko soor am bu mel te ci Gambia kon du bansang momuñ ko Gambia ko mom ndax tay kep ku fi dugg mi domi Gambia soxol sét na ci liggéey bi nim bakane nim ne ni gawé lolu mom dañ ci ndokkeel ñu Gambie yow am nañ cër war a njukkal président ne ko gàcce ngalaama ndax lii ci warsagam la te it la ak fatlum ak warsaguñu ko yàlla jox ko fii ci Gambia man du ma wax a li njëriñ Bansang rek la ndax li njëriñu Gambia yëpp ñoo ko bokk ba tey maa ngi ñëw foofu damaa duggaat Gambia ndax soo a jóg président di la jóg njëriñu Gambia la ñu yàlla jox ci moom ndax bi mu toogee matagut ñetti at yu baax ñaari attaque ngi dugg ñetteel bi si ñaari at ci la nekk ñetteel at bi jeexagul bu baax mën naa dafa jeex démba tey mu commencé si ñetteeli at bi waaye li ñu gisagu mu taxaw ci Gambia ñun mën nañoo wax sukkandiku ne bu ñu yàlla dimbalee ñu bàyyi ko fi balaa juróom ati Gambie yëpp dinañ teg seen bët ci njëriñam ndax foo mën a dugg ci si muy juróom-ñetti eh, région yi nga xam ne mu nekk ci biir Gambia foofu dugg da nga fekk njëriñam yoo xam bi mu toogee léegi matagu ñetti at yu baax kon ñun Gambia lan moo ñu war delloo ko njukkal ci li nga xam ne yéene na ko Gambia pour defal ko Gambia not banque gi ma la bëgg a wax man di damay wax ne Gambia fu lu njëkk dalee ci eh, sant yàlla ci diggante développement yi nga xam koy def mbooleem foo xam ne tey fi ne nii ci suuf suufi Gambie la boo fa demee da nga fekk njëriñam eh, di wax moom génn naa mbiri yoon mbiri courant génn naa ca génn naa ci mbiri ndox génn naa ci mbiri machine wal te yooyu yi yaakaar naa ittee Gambien yi ñëpp a ngi ci bugg teg seen bët mu ngi ci gis ni taxawaay bi mu ci taxawee kon lan ban buntu ngaay dem doo fekk président dugal fa dugal fa loxoom amul mu ngi des nag fi ñu toll doomu aadama yi dañ neexut amee ndam ndax doomu aadama bu ne dafa am na ko yàlla bindee dañ yàkkamti di togg yàkk lekk ñam bu ñoragul te it boo seeloo diir ñetti at nga am wane si signal yoo xam ne Gambie yëpp teg nañ bët ne yow mii fa nga jëm buñ la mayee chance da nga dem kañaan dina yàqal lu bëri te li ma gisagum suñ ko baxee time mam mu liggéey li war liggéey Gambie dina xam fu mu jógee ko fu mu nekkoon ci poste bi mu dana fa génn ndax ñun Gambie ñu ñor te ku ñu ñu topp sa gannaaw ñun seetuñ may intérêt seetuñu askan intérêt dañu seeti intérêt Gambie aadama bu fi ñëw yàggul waaye li woon Gambien na yëg-yëg bi am na itte bi te oyof na wane na ne président la waaye wane na doomi la kenn ku ne bàyyi na la sa a nga ne aadama bi mu toogee ba tey amul kenn ku ko ne kenn ku ne la bàyyi si sago li des mooy na Gambie ni jóg jàppale ko muy ministre yi muy député yi muy képp ku am place position boo mën a am téyel na Gambie nga téyel parce que position bi nga jàppale Gambie ndax aadama mu ci li ko war jokkati na place nga waat mu jox la ko lu war liggéeyal jàppale ko ngir yàlla Gambia mën a dem ñun nag pare nañ ñun nag banque pare nañ te incha allahu rabbi da nga xam ne pare nañ wax ji nag liñ cee sante yàlla mooy li nga ñuy invite nii dañ cee kontaan ci yéen te di la ñaana seen programme yàlla na gën a yaatu ndax lii muy feeñal li nga xam ne mooy président ndax tey bëri na tey li bu ku bëgg a wax mënta wax bëri na tey ku xam li ci biir mënu koo wax waaye li ngeen di def nii pour mu wan feeñal àdduna li xam lu xew wax ji bëri na wàññeeku ndax presse yaa ngi dem ci noppi nit ñi ñi nga xam ne xamuñ xàmmewuñ wala yëguñ li xew ñu ngi jaxase mbir mi di ondamaay ñeneen ñi waaye bu ngeen laajee ñi nga xam ne ñu nekk ci grand bi di léegi dañ lay wax lan mooy li xew ñu ne ñu ngi sant yàlla di leen sant di ñaan yàlla seen programme bi yàlla a yaatal am nañu mbégte ak kontaante bu baax di sant suñu réew di sant suñu président réew di ko ñaanal yàlla yàlla may jàmm damay ko sutura damay ko tawfiix ak ndax wax dëgg yàlla xol bi seet na yéene bi rafet na warsa bi baax yal nañu yàlla ji dimbale ñu li moom it mooy egg ci fa ñu jëm bañ egg